ci xaaju ñetteel bi mu ngi tolloon ci hamzatul wasli <clears throat> hamzatul wasli moo di lan moo di yi nga xam ne dafay nekk ci commencement wu baat mën naa nekk ismu tur wala fi'lu wala xarf boo commencé ci moom wax da nga ko tudd waaye boo commencé wut ci moom da nga koy xasaf doo ko tudd comme intabaxtu yeewu naa kooku xam tudd wasli la moo commencé baat waaye boo ci commencé wu doo tudd intabaxtu hamza gi doo ko tudd naan fan tabaxtu boo commencé ci faa gi naan fan tabaxtu yeewu naa ko defee hamzatul wasli la ñuy jàng wal qat'i ak hamzatul qat'i hamzatul qat'i mooy yi nga xam ne moom ala kulli xaalin foo nga tudd ko te dafay am dafay am bopp ca kaw bu maasee fatha bu maasee ci kaw bopp bi ci kaw lay nekk bu maasee ci suuf bopp bi ci suuf lay nekk hamzatul wasli mën ngaa jàpp rek ne ci maadi yi lay ñëw boo xam ne xumaas yi la bépp baat boo xam ne bépp fi'lu maadi boo xam ne juróomi xaraf la hamzatul wasli lay am mais doo am hamzatul qatl بيب فعل بو خامني جيروم بن حرف لا ام تطل وسلام ميد ام همز القطع كون مادي خماسي اك مادي سداسي ام تطل وسر لا يام سين امرو تمت ام تطل وسر رك لا يدون سين مصدر تمت ام تطل وسر لا يدون كون فعل خماسي بو مانا غيس مادي با اك امرو با اك مصدر با ام تطل وسر لا يدون سداسي غو مانا غيس maadi ba amru ga ba amsatul wasl lay doon mais du nekk amsatul qati sulaasi goo mën a gis tamit amrom bi amsatul wasli lay doon boo mën a gis boo amee amru am amza rek amza googu amsatul wasli lay lay doon kon fi'l yi yooyu ñoo ci am amsatul wasli maadi xumaasi ak sudaasi ak seen amru ak seen masdar ak amru sudaasi bu dee ismu fukki ismu rek ñooy am hamzatul wasli danañ ko jàng xaraf yi yëpp hamzatul wasli lay doon ba mu des al dégg nga wax rek hamza bi xatma lay mooy misaal yi samextu dégg naa ab darsu darsu bi fan tabaxtu ma yeewu in tabaxtu yeewu naa li darsi ngir jàng darsu bi ba nga commencé bi dangaa jàng am gi am gi ba ci commencé wut jàngoo ko jarabtu nattu naa asadiqa xarit bi waxtabartuhu nattu naa ko ixtabartu nattu naa asadiqa xarit bi moom na sadiqu la def waaye sadiqa la gis nga waxtabartu nga wax fii nga ne ixtabartu yi commencé la ñaari yëpp ixtabara intabaha kon seen maadi am sa du bas lay doon ak seen amru ak seen masdar tamit ida sami'ta boo déggee ak dars dars bi fantabih na nga yeewu intabih yeewul li darsi ngir dars bi intawaha amroo ma ngi noonu hamzatul waqti la moo tax ba nga ci commencé wu tuddoo ko ba nga ci commencé da nga koo tudd ida saadaqta booy xaritoog faxtabir na nga nattu ixtabir nattul asadiqa xarit bi balaa nga xaritu ak moom gis nga ixtabara xumaasi la waaye amrom bi hamsatul xati la hamsatul wasli la doon surirtu bégloo nañ ma min intibaahika ngir sag yeewu intibaahuka sag yeewu sarrani bégloo na ma gis nga intabaa xumaasi la masdaram hamsatul wasli la doon boo ci commencé wu doo ko jàng moo am zëgg boo ci commencé nga tudd ko min intibaahi ka ak intibaahu ka yoon rafu danañ xam asadiqu xarit bi bilix dégg nga ci nattu dégg nga mm-hmm. ixtibaaru sadiqi nattu xarit bi min al xasmi mu ngi bokk ci xel gis nga bilixtibaari ay bil ixtibaari la waroon doon waaye doo ko jàng nga ne bilixtibaari fii nga ne ixtibaaru sadiqi nattu xarit bi su ko defee gis nga ne ixtibaar masdaru ixtabara la xumaasi la masdar mu am satu xatmi eh, du ko doon am satu wasi lay doon mhm. man istamsaka ku jàpp bil xaq ci dëgg faaza texe na dégg nga mhm. istamsaktu jàpp naa bil xaq ci dëgg kooku sudaasi la mhm. kon maa di hamzatu wasil lay doon alimtu xam naa bi majaahi sama at mi fastabshartu ma bég istabshartu bég naa bi najaahi sama at mi misaalu njëkk yi hamsatul wasli bi dafa am ko jiitu misaalu ñaareel bi nag hamsatul wasli bi moo commencé jumla bi loola waral nga tudd ko ci misaalam ñaareel bi ndax moo commencé jumla bi misaalu njëkk yi doo ko tudd ndax daa am lu ko jiitu commencé wu jumla bi kon istabshara istamsaka ñoom sudaasi lañ seen maadi dafay am dafay am hamsatul wasli mais du nekk xat qul waxal alxaq dëgg wastamsik te nga jàpp bii ci moom istamsik jàppal bi xaq ci dëgg gis nga eh, amru istamsaka mu ngi noonu kooku sudaasi la amrom bi xam sasi wasti tey as bul wastabshir na nga bég istabshir wala tey as bul naagu hamza boobu hamsatu wasli la ndax amru sudaasi la amru sudaasi la laa chey addeet dara kastim saakin mar di mel ni jàpp nit ascam bilàq ci dëgg amul lu mel ni nit ki jàpp ci dëgg istimsaaku kasak jàpp bil xaq ci dëgg fadilatun ngëneel la su ko defee loolu masdaru sudaasi la hamzatu wasli lay am ajabani yéem na ma istibshaaru kasak bég istibshaaru kasak bég ajabani yéem na ma gis nga boo ko continuer nag ne ajaba nis tibshaaruka ajaba nis tibshaaruka istibshaaruka sag bég ajabani yéem na ma kooku masdar istabshar la masdar sudaasi hamsatu wasi lay doon kon xumaas boo mën a gis ak sudaas yi boo mën a gis seen maad am mm. iza alimta boo xamee fa amal na nga jëfee bi amal bi almika na sa xam-xam mhm. fa amal am sa du wasle amal na nga jëfee bi almika si sa xam-xam ci amila la la jógee kooku sulaasi la sulaasi goo mën a gis am ruba bu amee hamza hamza gi hamza du wasle rek la mën a doon taqabal nangul al maarufa njëkk washkur te nga sant ko uskur santal man sanaaka liggéey almaarufa njëkk uskur googu amru bi hamsatu wasli la mën a doon ndax amru sulaasi la sulaasi boo gis amrum gi hamsatu wasli lay doon tanaasa da nga fàtt fàttalu acharra xay wazkur ta nga fàttaliku alxayra yiw uzkuril xayra fàttalikul yiw gis nga uzkur amru sulaasi la hamsatu wasli lay doon kon ñett rek moo am ci langue arab ismu fi'lu xarf xaraf yëpp seen hamza yi hamzatul wasl lay doon ba mu des xarfu al dégg al moom hamza gi hamzatul qat'i lay lay doon Mm-hmm. Eh, dama dama juum ismu ak fenl ak xarfu ñoom am ismu fenl yëpp dégg nga buñ dee maadi xumaas yi ak sudaas yi ak seen amru ak seen masdar fenl yu yooyu rek ñoo ci am hamzatul wasli maadi xumaas yi ak sudaas yi seen maadi ak seen amru ak seen masdar ak amru sulaas yi yooyu ñooy am hamzatul wasli ci fenl yi ismu yi ñoom hamzatul qat'i lañuy lañuy am laa bëgg wax hamzatul qat'i lañuy am ba mu des fukki ismu ñoom dañuy am hamzatul wasli danañ ko jàng léegi. Hmm. xaraf yëpp damaa juum ne hamzatul wasli lañu doon waaye li mu bëggoon mooy xaraf yëpp hamzatul qat'i lañuy am ba mu des al al rek moo nekk hamzatul wasli ci xaraf yi hmm. kon ismu ak fi'l ak xarfu ñu am ismu yëpp hamzatul qat'i lay am ismu boo gis rek defal ko hamzatul qat'i bu amee ba mu des fukki ismu ñoom hamsatu wasli la ñuy am danañ ko jàng xaraf yëpp hamsatu xatne la ñuy am ba mu benn xaraf muy al kooku hamsatul wasli la moo tax moom boo jëlee ab baat dugal ci al booy jàng mu doo ko jàng minal bayti ngay wax boo ci commencé nga ne al bayt amma fi'lu sudaati xumaasi seen maadi ak seen amru ak sen master ak amru sulasi kese amru bi rek laa wax yooyu ñuy am xamdatul wasli judul yi xamdatul xat lay doon albaxtu li may doon ida tàmmalta boo selantalee alam selante misaal yi fi xismi awali ci xaaj bu njëkk bi raayta da nga gis anna kulla misaalin ne bépp misaal yastamilu dana lambo ala fiil maadin ci fiil maadin aw amrin wala fiil amr aw masdar wala masdar misaal yi dafa maadi amru ak masdar wa kullu waahidin benn bu nekk min haadi ci yii واكون ادي تامت تابلا في وسط الكلام في ديغ وحدي ومبدو دنجو كو كوماسي بحمزه انت حمزه واذا قرات بو جانغي كل مثال بك مثال رايت غيسنا انك نيو لا تنطق دوت دمك مك بهذه الهمزه تي بالهمزه في اثناء القراءه تي بيت جانغي بل لي في تسقطها دا ngay rotal بو جانغ مودم jang دا dem hamza ga da fay rot ila amsilati qismi saani ci misaalu xaaju ñaareel bi raayta da ngay gis haadil afaala yi def fi'lu wa haadil masaadir ak yile masdar nafsaha seen bopp fi awali kulli jumlatin ci njëlbéenu bépp jumla fi'lu ya nga gisoon moo xam maadi la wala amru ak masdar ya nga gisoon ñoom ngay gisaat ci xaaju ñaareel bi wa raayta da ngay gis annaka na yow ida qara'taha boo ko jàngee na taxta da nga tudd bil hamza ci hamza gi walam tusqitha te doo ko rosal faadil hamza hamza gi idan kon laa tasqutu durat illa ida kaanat lu may bu nekk muttasilan tan di jokk bi seen ci dara kon hamza di wasli balaa moo rot mooy mu jokk ci dara waaye boo ci commencé wax da koy jàngale wala hada li moo tax tout sement dañ leen tuddee hamzatu wasli hamzatu wasli wa ida rajata boo delloo ilal amsilati si juróom benn misaali al ula yu njëkk yi رأيت ذلك أن الكلمات نبادي المبدأة يكما سيب بهمسة الوصلي كي همسة الوصلي فيها في جملة هي بعد يوم مادي خماسي أو أمره ولا أمرم أو مصدره ولا مصدرم نتي مثال يكي مادي خماسي نغفقس انتبه ولا أمرم انتبه ولا مصدرم انتباه وإذا تأملت بوسرم تلي أنا سيدي ستة ثانية جرم بين مثال نياري رأيت لوجد أن الكلمات النبادي المبدوءة في كماسي بحمسة الوصل في حمسة الوصل في هذه الجملة هي موي مادي سداسي وأمري أمر مصدري المصدر يرن مثال جس يكي أم حمسة الوصل موي سدا مادي سداسي أمر المصدر وعند النظر في قوله إيه أمثلة ثلاثة يكي مثال الباقي يرس tara da gis am na kalimaat ne baat yi al mabduat yi commencé bi hamsati wasli ci hamsati wasli fiha ci dégg jumla yooyu hiya baat yooyu commencé hamsati wasli mooy amru sulaasi amru boo xam ne ni fi'l ba jugee ñetti xaraf la walaw annaka bu doon yow tatabaatu topp nga asbaa hadi afaal yu niroog fi'l yi maanaam maa sulaasi goo mën a gis ci langue arab maa di goo mën gis ci langue arab wala xumaasi wala am nga sudaas yi gis ci laan arab wala xumaas yi wala boog masdaru sudaas wala xumaas yi goo mën a gis ci laan arab hamza gi hamzatul wasli rek la mën a doon moo tax mooy walaw an nak topp nga asbaa hadi afaal yi yu niroog yi lay fi'lu wa hadi masadir ak yu niroog masdar yi arabi ci langue arab la ra'ayta kon da gis an al hamzata ne hamza ga في كل ماد في بيب مادي بو خمنا خماسي جرم حرف لا وسداسي وجرم بين حرف وامرهما اكن امر ومصدرهما اكن مصدر تكون دينك همت د وصل دي همت د وصل دائم بفو يدولي نك يدولي نتوب ديرك نيو ام همت د وصل همت د قتل ام واذا رجعت بو ديلو الى امت د قسم الثاني في مثال خاج نيارل لتتبين pour nga worlu nawa xarakati hamzati wasli façon maskab hamza ak waslu bi alqiyaas yi gi këju qiyaas ida jaat bu dikkee ci awalil kalaam yi ci njëlbeen wax maanaam hamzatu wasli bu nekkee ci commencement bu baat ndax fatxa lañ ko war a maas wala damm wala kasra ah da xool raaytu da nga gis am na xaane moom maksuratun dañ koo kasra fi jëmel afaali ci mboolem fi'lu yi wal masaadir ak mboolem maskani ما دي سداسي ولا خماسي ولا سن أمر ولا سن مصدر يب أمثل وصل بلا فهي كثرة إلا في الأمر الثلاثي لميت أمر الثلاثي الذي بنا قمنا قبل آخره لنجك مجدمة دملا وفيك جعل بي ثلاثي لنجك حرف له تلنجك مجدمة من حرف بتي دي بدفع دم أكوكم هم حمزة الوصل بدن كوي دم كم أكتب la njëkk baag dafa dam kon hamzatul wasli foofu dafa war a dam comme nuñ ko jàngoon ci sarfu ba kama fil misaale ni comme nu ñëwee si ñaari misaale al axirin yu mujj yi mooy uskur ak uzkur tuddal بعد هذا قلنا لي لم يبقى إلا أن تعرف لما ينقم حمزة المادي حمزة المادي الرباعي حمزة القتيل ورد ده مادي خماسي أكسداتي لأنه خمسين حمزة موي حمزة الوصل amma maadi rubaay hamsatu xatyi la comme akrama wa amri amram tamit hamsatu xatyi lay doon comme akrim fa akrim na nga teral doo ko dagg mukk wa masdari masdaru maadi rubaay rubaay masdaram hamsatu xatyi lay doon comme ikram ka arsala bii firi yónni na arsil yónni irsal yónni ak ak yónni wa haadi hamzatun lii hamza la goo xam ne yun taqu danañ tudd bihaa ci ñoom fii darjil kalaami booy taxañ wax bi maanaam booy taxañ wax bi mooy boo ci commencé wut da nga koy tudd wootu sama dañ ko tuddee hamzatu xatin muy hamzatu xatin mooy bu am bopp bi xatu nag mooy boo xam ni xëy na doogu nañ ne force danañ ko jàng rek wa kullul hamazaati mboolem hamza yi allati yi nga xam ne fii awali asmaa yi ñu ngi ci commencement tur yi hamazaatu xatin hamsatu xatin lay tur woo mën gis comme ahmad ibrahim ba jeex hamsatu xatin lay doon illaa fil asmaa yi lu mooy turi alaate yi dikk nga mokkal ko muy fukki tur waaye ñun mooy ibnun ibnumun ibnatun imruun imraatun ismun istun aymunun aymunu isnaani isnataani tur yi rek ñooy tur yi nga xam ne am tudd wasil la ñuy am yeneen yu ñoom am tudd xatti lay doon ibnu mooy firi doom bu góor ibnu mun tamit doom lay firi maanaam luxa la ci ibnu dañuy wax ibnun dañuy wax ibnu mun waaye nun gi na nga maas miim gi dañ koy maas boo maasee miim gi damm nga ne up ibnu mun nga maas ko fataa nga ne ibna mu ibna man nga maas ko kasa nga ne ibni min kon nuun gi miin gi lay topp ci makk waaye lii ibnun di firi rek moom lay ibnu mun di firi mooy firi doom bu góor ibnatun doom bu jigéen yii xam satu wasl la ñu doon imruun as nit mooy ab nit rek imraatun ab jigéen ismun tur istun toogukaay muy fii doomu aadama di toogee mooy istun ay munu am ngëñ la arfu ngëñ la ay munullaahi mooy maa ngi gën ci yàlla isnaani ñaar ñu góor isnataani ñaar ñu jigéen kon fukki ismu yi rek ñoo ismu yi nga xam ne hamzatul wasli la ñuy doon amma ismu budul ismu yi rek hamzatul xatni lay doon wa kullul hamazaati mboolem hamza yi allati yi nga xam ne fii awali xuruuf yi ñu ngi si commencement araf yi hamazaatu xatin hamzatu xatin lay doon illaa fii al lu mooy ci al mboolem hamza yi nekk ci xaraf hamzatul xatmi lay doon ba mu des al alu taarif al gi nga xam ne dafay ñëw pour def baat bi maarifa kooku hamzaam bi hamzatul wasti lay doon kon mën nga tënk rek ne langue arabe ñett la ismu fi'lu xarf لان العرب نيت رك لا ام اسم فعل حرف حرف و من غيس همزه ام بي جوم داف كو همزه دو قطع بام داف حرف التعريف ال غي خا دا نيو بور تعريف كوك همزه غي همزه دو وصل لي دون اسم بو من غيس همزه ام غي همزه دو قطع لا بام داف فكي اسمو ñoom seen hamza hamzatu wasl la mooy ibnun ibnumun ibnatun imruun imraatun ismun istun aymunu isnaani isnataani yii dañoo ismu yi nga xam ne seen hamza hamzatu wasl la waaye bu dul ñoom seen hamza hamzatu xatmi la amma fi'lu yi xumaasi ak sudaasi ñoom ñoo ci am hamzatu wasl ak sudaasi xumaasi nag maadem bi ak amrom bi ak masdaram bi kadalika sudaasi commencé sudaasi seen maadi ak seen amr ak seen masdar hamzatul wasl lay doon sulaasi nag amroom rek mooy nekk hamzatul wasli gis nga lekk na sulaasi hamzatul xati la waaw mais sulaasi amroom rek mooy nekk hamzatul wasli kon langue arabe yëpp yi ñoo ci am hamzatul wasli yu yi rek hamzatul xati lay doon comme noonu ñu ko jàngee hamzatul wasli boo ci commencé da koy tudd da nga koy kasra ci bu dee sudaasi la wala xumaasi ak lu mu mën moo xam maadi amrum masta da nga koy kasra bu dee nag da koy kasra la njëkk mujj bu dàmmut la njëkk mujj bu dàmmoo nga da nga dàmm ko boo ko commencé tudd ko boo ko commencé wu nag wax doo ko tudd alqawaay li mooy tënk yi hamzatul wasli hamzatun wa hamza la goo xam ne tuzaadu danañ ko yokk fi awalil kalimati si njël bennu baat bi léetu wasala ngir ñu jotliko bihaa ci moom ila nutqi ci tudd bi saakini ci aji sukkoon hamzatul wasli si njël benn baat lay ñëw li tax ñu andi ko mën a tudd sukkoon gu jiitu xam nga uktub boo andiwutoon hamza gi rek sukkoon ngay am kaaf bu sukkoon te sukkoon arab bi ci commencé wax moo tax moom ñaareel dañ koy indi ci commencement bu baat bi pour mën a jàng sukkoon ko loolu rek mooy njëriñam. Mhm. waaye ñoom tasbutu dañuy sax ci bët il kalaam yi ci commencement wax booy commencé wax ji da leen tudd wa tasqutu dañuy daanu fi darji yi booy taxañ maanaam boo ci commencé wul wax izhab demal da nga andi hamza gi ngir lan ngir mën a jàng sukkoon ak zaal gi mhm. waaye boo ne fazhab demal hamza gi tuddatoo ko da ngaa taxañ wa takun dana nekk moom hamzatu wasli fil maadil xumaasi ci maadi boo xam ne juróomi xaraf la wa sudaasi ak maadi boo xam ne juróom benn xaraf la wa amrihima ak seen amru wa masdarihima ak seen masdar wa amri sudaasi ak amru sudaasi bu dee fenlu daal fenlu yi rek ñoo am hamzatul wasli xumaasi ak sudaasi seen maadi ak seen amru ak seen masdar ak amru sudaasi yii ñoo am hamzatul wasli ha yu yi ci fenlu yi rek hamzatul qat'i lay am hamsatul qati hamsatul qati tasbut lañuy sax fi badil kalaam yi ci commencement wax wa darji ak taxañ ga amma hamsatul qati booy ci wax danga leen jàng booy jàng mu dem danga leen jàngaale mu hamsatul qati ka hamsatil maadi rubaayi comme amzaak maadi rubaayi ak yu dégg nga akrim ikraman wa amri ak amru rubaayi wa masdari ak masdaram yu hamsatul qati moom danga koy jàng jaa dikk na fa akramahu mu teral ko gis nga ko jiitu gaa mais tudd nga ko man nga aw akramahu teral rek kon nga commencé ci wax ak am lu ko jiitu moom hamzatul xatyi moo ci yem dégg nga da ngay am dëgg loolu moom mooy att bi foofu dégg nga wa hamzatul asmaa yi hamzaay tur yëpp hamzatul xatyi lañ wala xuruuf yi hamzaay xaraf yëpp hamzatul xatyi lañ ma ada baadi asmaa yi lu mooy yenn tur yi mooy fukki tur yi ñu jàngoon yooyu moom seen hamza am tudd wasi la <clears throat> mais yu dul yooyu seen hamza am tudd xati wa al ak lu mooy al alu taarif kooku hamzatu wasi la lu mooy moom rek ci xaraf yi hamzatu xati lay doon dégg moo tax inna ak anna ak anna gis nga seen hamza yooyu hamzatu xati la la doon waaye al taarimu hamza nga hamzatu wasl lay doon ala xaraf gu hamzatu qat'i lay am xaraf yëpp hamzatu qat'i lay doon moom des al al rek mooy am hamzatu wasl tamarin ay jéemantu la bayin leer lal fi ibarat atiya ci wax nii dik hamzatu wasli hamza ay wasli wal qat'i ak hamzatu qat'i ma zikri asbab ànd ak tudd sababi texte bi da nga koy leer la yéen am ñoo nekk hamzatu wasli ak lu tax ak yenn hamza moo nekk am hamza xadi ak lu tax li tax moom mun génn yi benn mu nekk maadi di xumaasi wala sudaasi wala mu nekk seen amru wala mu nekk seen masdar wala mu nekk amru sudaasi wala mu bokk ci fukki xaraf yi ñu waxoon fukki ismu yi ñu waxoon ne am wasl lañu doon wala mu wala mu nekk as budul yi hamzatul xat lay doon yu abdu danañ compté masjidu sultaan jàkkaay buur bi xasan bu nasir min fan fanni mu bokk ci mm, fan yi gën a yéeme al arabi al arabi yi ka jug arab badaaya mooy luñ fenti tam rafet lool fànn nag mooy lu aare rek loo xam ni boo koy xool danga ko xoolaat mu ne jàkk jooju daal bokk ci yi nga xam ni arab yi fent nañ ko mu yéeme lool min haysu ittisaau ittisaau jawaanibihi te mooy yaatoog ay wàllam وأحكام بنائه أقرن وإحكام بنائه أقرن التبخم جاك جوجي دفيات تبخ دفقرن من يعني دفتقر وارتفاع منارته أجيك تكوك أي صورم صوروري دفكبه واستماله أغلامبو جم لامبو على كثير من سببري من النقوش أي رد وزخرفي أغايتار وزخرفي أغايتار jakka ji dafa am ay rëdd ak ay mbir yu rafet yu bëri wa qad ibtada commencé na binaauhu tabax ko fi naxwi muntasifi alqarni thamin ci lu mel ni xaaju maasob juróom-ñetteel ba alhijiriye gi ka ju gaddaay ba yonent bi gaddaayee ba ca maasob juróom-ñetteel ga mooy juróom-ñetti téeméeri at xanaa téeméeri at yu nekk benn mas la maas ak juróom ñetteel gi ne ba am juróomi juróom fukki at maanaam juróom ñaar téeméer juróom fukk ci jamono boobu ci la commencé tabax jàkk jooju wastamara continué al amalu liggéey fii ci jàkk ji salaasu sanawaati ñetti at jàkk ji mu ko liggéey ci diirab ñetti at waan faqa dundale na fi insha yi ci sos jàkk jooju amwaalan ay alal taailatan yu bari amwaalun taaila mooy alal yu bari rek wastaqdama wastaxdama liggéeyloo na fii ci jàkka ji assunnaahu way xarale mooy ñu xarañ almahara ñu ñaw ci wàllu tabax fastabaqu ñu daal di raw sax al ijaazata rafetal nga ne bu doon rafetal mën nañ ko raw ñoom jiitu nañu rafetal wam sarafu ñu wa ñu tourné wu e itqaani dem ci xereñe ñoom romb nañ rafetal mais dañoo dem ci xereñe ko maanaam kon ñoom rafetaluñ jàkk ji rek mais tabax ba dafa yéeme te xereñ dëgër mu ne fasab demal nag ilay ci jàkk jooju wa anim nga xóotal an nazara sa xool fii nuquusihi ci ay rëddam wa saqfihi ak ay teeraasam وانظر قال الى عموده اي كنوم وجدرانه اي ميرم وامتلئ نغفاس بما فيه كلكنك من جمال كتار وروعة اكاديم روعة ميتار بولي تيتلو نغفاس السقل تاري جاك جوجو اك رفتايم واستمع نك لما يلقيه كلمي سن في اذنك السنب كل ركن بيب بونك min arkaan yi ci ponk jàkk ja maanaam boo xoolee poto boo gis ci poto yi jàkk ja am na lu lay wax mu ne loolu poto yi di la wax na nga ko déglu nga ne ko lan la poto yi di wax mooy an li am ta am gis nga an gi waaw mu bàyyi an xaraf la gis nga gis nga xam ko an li am ba am iftaxir na nga puugare woo daa bàyyi ko sa in siita bu la neexee walakin waaye nag isna liggéeyal kama sanaaw comme luñ di comme comme luñ liggéey mu ne boo demee jàkka ja daf naan la dëgg-dëgg bu la neexee nga puugaroo say baay yi defar lu mel nii waaye nag fexeel ba def lu mel ni lañ def loolu mooy puugaroo gi gën a mag su ko defee amza yi nekk ci biir texte boobu indi ko bu nekk nga wax ban façon amza la haati haati andil fi'la amrin fi'la amrin min al masaadir al aatiya ci masdar yi dikk wa bayin nga leeral nawaa hamzati xeetu hamza gi yii ay master la da ngay indi seen amru nga wax ban hamza la an nasru ndimbal al quudu toog xam nga yii sulaas yi de indi seen amru nga nga wax ban masdar la al istixaasatu xettiliku boo delloo ci masaajir yi nga jàng maa foo ko sulaas yi rek masdar maa dim زي استغاثة الإقبال جبل النصر وسار متسار در الشرب نان الخروج جن المشي دخ الابتهاج بك افتعال كتب الذهاب دم الإسلام جبل أسلم أفعل افعال كتب الاسفرار اكزون دينغ البحث قصت النقل تخل الانعتاف اغوانيكو اكتورني الاسعاد تخيل الاجتماع دجلو النظر قول الجلوس توك الاستكان سدل فهم مصدر يو خمني سين فعلو اپو نسلاسي اك يو خمني سين فعلو سلاسي رجل سكو دفعنا نينا اندي مصدر يبسن امرو لسوخنا نجا اندي كو نجا من موي ام بنام زلي ام الاكرام ترال اراف مو يكتيكو الاقدام سونغ القعود القعود توك ان نكو نياار يون الاحترام ريسبكت موي حرمان هاتي عندنا الفعل الماضي فعل الماضي من المصادر الاتيه في مصدر يدك وبين لار للنوا همزته قيت همزه ما ذكر اسباب عند تدو سببي هي اي مصدر لا سخل الامر بالماضي بلا سخله nga wax maari bi ban hamza la am al istiqsaaw mooy jeexal dem ba yegg ci doyob mbir mi al irtixaalu ak laxas al insaafu mandu al imtixaanu examen mooy nattu rek al istixaalatu ak soppeeku al intifaaw jëriñu al ixbaaru xibaar al istinkaaru sàkkoo weddi الإحياء دندل الابتكار فنتي فنتي افتعال لن كنت افتعال لك كنا خمنا المصدر افتعال لا هذه مراجعة التي درس لنا جانون صرف بخم يان يعني كنت كبلي دفن المالي نوخ بن حمزة ليان هاتي عند المصادر الأفعال آتي مصدر فعل يدك bu bayin leeral hamzata hamzam ma zikri asbaabi ànd ak tudd sabab yi yii ay fi'lu maadi la indi nga wax ban hamza moo ci nekk irtada gërëm na istaghfara jéggalu na abdaa fent na intaqara toxul na ahdara teewal na teewal na tamrin bu mujj bi kawin formel jumlatun fi'liya jumlaay fi'liya boo xam ne fi'luha fi'lu bi maadi xumaasi la maadi boo xam ne juróomi xaraf mabduin bu commencé bi hamsati wasli ci hamsati wasli boo bañ leeralal na waa xarakate ak xeetu maskaay hamza ga formé jumlaay fiil yi goo xam ne nii fiilu bu muy commencé maadi xumaasi la bu am hamzatu wasli nga leeral hamzatu wasli googu ban maska lañ ko war a kasra wala dam kawin leeral jumlatan fiil yi jumlaay goo xam ne fiiluwaa fiilu bi maadi sudaasi la maadi boo xam ne juróom benn xaraf la مبدوء بكماسي بهمزة وصل في همزة وصل وبين وبين لرل نوع حركة أخيط مسكة همزة وصل بي جملة فعلية غو خمني ما دي سداسي غو أم همزة وصل لي كماسي نلرل همزة وصل بي بن مسلم كماس كوين فرمل جملة فعلية جملة فعلية غو خمني فعلها فعل بي أمر ثلاثي لا المبدوء بكماسي بهمزة وصل في همزة وصل وبين لرل نوع حركة أخيط مسكة بي formel jumlaay fen yeegoo xam ne fenlu bi amru sulaasi la bu commencé hamzatu wasli nga leeral amru boobu hamzam gi ban maas lañ ko maas ndax mën nañ ko maas daam mën nañ ko maas kasar kawil formel jumlatan jumla al mubtada wa mubtada ga fiha ci moom masdarul xumaasi masdarul xumaasi la al mabdu bu commencé bi hamzatu wasli ci hamzatu wasli wa bayin leer lal na waa xarakata xeetu mask bi formé jumla goo xam ne mubtada lay maanaam ismiya la kon dégg nga jumla ismiya la mubtada gi masdaru xumaas yi bu tàmbalee hamzatu wasl la nga leeral masdar hamza boobu ban façon masdar la su ko defee lii moom moo doon dars bi di jàngale hamzatu wasl hamzatu qat'i laa ngi arab yëpp daal bu dee ismi la xamal ne hamza am yëpp hamzatu qat'i la ba mu des fukki ismu yi ñu jàngoon léegi mooy ibnun ibnumun ibnatun imruun imraatun ismun istun aymunu isnaani isnataani yii ismu yii di fukk ñoom rek ñuy am hamzatul wasli bu dul moom hamzatul xatiya xaraf yëpp hamzatul xatiya la ba mu des xarfu al fi'lu nag bu dee sulaasi moom amru ba rek mooy am hamzatul wasli bu dul loolu rek hamzatul xatiya la bu dee sulaasi xumaasi be sudaasi bi rek ñoo mën a am hamzatu wasli te mooy seen maadi ba ak seen amru ba ak seen mastar ba dégg nga la wax ne ñuy am hamzatu wasli ne hamzatu qat'i moo fay nekk in uriidu l-islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi wa salaamu alaykum wa rahmatullahi